war sénégalais yi waaw soo xam ne sénégalais wax dëgg ci yàlla ci su ndaw ñi daj nañ ci moom lu ne waaw comme ni ko soxna si waxee waaw ah, mu bañ leen a wor li nga xamante ne ni maanaam loolu la ñu séntu ci moom ci kattanu yàlla ah mu lu ci incha allahu rabbi ñun dinañ ko ñaanal heure bu ñu dogee koor dinañ ko ñaanal yàlla jàppale ko ah mu mu ci ay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dëkk boo nga ne dëkk nangam dëkk bangam rawatina man département bi ma dëkk muy département Bambey nga xam ne man commune bi ma dëkk mooy commune Ngoye Aliou Sylla maanaam euh, benn pays euh, benn benn euh, koo xamante ne ni mës na nekk a opposition mosu ko gagné mu gagné ko à large waaw bisalaam mu jàppale maanaam góor yàlla yëpp jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to bañ war sénégalais yi. merci beaucoup mais Mbaye ñu ngi bu baax. waaw maa ngi sant. sant yàlla alhamdullah wa lépp jeex na waaw no jeexagul nak dess na ligey bi wala la la métti won dal mo jeex legui dal mbekté mo fi dess inshallah allah ñu tàmbali ligey bi ci bismillahir rahmanir rahim rek tàmbale ko ci wéru koor wi ni ci fukki fan yu mujjé yi da amaana yàlla dina ci def tawfiq inshallah donte na métti won na torop olof dafa am lu muy faral di lépp wa li ñu dund mom danaka bo génne dèjà sa fi du daal non seulement ce fi du dal sa sa parents aussi da lay woo di la artu naan la defal naa nga xamal li ngay wax mais lolu yeb jeex na tey voilà loolu yëpp daanaka jeex na léegi macha voilà waaw alhamdulilah alhamdulilah. wa président Diomaye li ñuy xaar si moom euh, li may xaar si moom moom la Sénégal yeb la xaar si moom mooy liggéey bi nga xamantene ne am nañ si yaakaar à 100 liguey bo xamantene day jaar ci yoon. surtout nak ci côté justice ak aussi euh ci côté euh lu jëm ci walum li nga xamante dëkk bi moko momal bopam boppam loolu moom am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax bu dee joomaay rek ñom waaw man sama xel dina dal daal inshallah allah bu soobee yalla merci beaucoup. alaykum ki li ko baax sante yalla alhamdullah jaarama wa bis bi sante yalla rek damay wax tay ji ni fi ni ñep ñun ñep ñu taxaw ni ya 6 mois ken amul won droit aw fi te fi ni dafa rafeton nit ñi don fi aw

seen seen seen seen seen passé seen seen njël passé na nañ ñu nañ ñu bàyyi suñu réew mi ñun ñoo ayee donc instant bii nii daal damay wax ñun kontaan nañ ñu bàyyi ñu sabure suñu suñu victoire alhamdulilah liñ doon wax naan ndaw ñi amuñu carte d'identité donc ndaw ñi tey ji wane nañ seen bopp donc dañuy sant yàlla alhamdulilah tey jii nag damay wax euh, lu mel ni président connexion bi nga xamante ni am na ko ak jeunesse bi yàlla bu mu tas te et puis mbay mi yàlla na ko dekkalaat ñun ñëpp ñu dellu ci bay ci mbay mi parce que mbay dafa nekk loo xamante ni luy dundal réew la donc boo xoolee mag ñu baax ñëpp ba ci yonent yi ñoom ñëpp ci mbay mi la ñu nekkoon ñun ñëpp nañ dellu ci mbay bi incha allah mu mu financé mu financé te fay bi nag waxuma fayu minable yi nga xamante ni bu ma bu ma déggee sax ñu naan nit dañ koy fay soixante dix mille fii ci jamono ju metti ji ñuy def gardiennage ñu leen di fay soixante dix mille am na ñoo xamante ni yi nañ koy yokk dund bi day yokk ta salaire du yok donc lu may ñaan moy salaire yi nañ ko yok loolu na nek première chose deuxième chose bi tamit ñu ñu koy ñaan euh, jeunesse bi nga xamanteni ño ci dé bu ñu faté ñoñu nañ leen défaral monument bo xamanteni ni du leen faté ba ila yow parce que jeunesse bobu bi ñuy génn di xex lan lañ leen doon wax ku dee yaa perte perte ñu perte ñu boo xoolee dina lislaam ana ñu ko xeexal ana ñu tay tay ji ñun bu ñu nekkee fii ba diko ko tey amna am nekon ñoo nopi nopi nañ ci nopi nopi bo xamanteni ni euh, doyna wax mais tey jii nii mag yi nga xamanteni ño nekkon fi buma ne mag ñi xam ngeen luma ñu may wax mag ñi nga xamanteni ni xex senegal ba mu egg fi ñooñu tey jii ni bu ñu ñëwoon ñun lañuy andal dañuy wax alhamdullah dañuy wax alhamdullah rek yalla na lire yalla na ñu jik sha allah voilà yalla na jik Yolande mu ngi ne ki ki wa assalamu alaykum Yolande la ma ngi ñep en fait dafa nek lo xam lu lu lu aduna gep doon xaar la franchement aduna gep a nga ko doon xaar ndax dafa nek lo xam bo boo gisee Sénégal dañoo kontaan dañoo bëgg dañoo voté massivement 54 lu jafé président opposant gagné premier tour lu jafé la liko waral moy lan moy askan bi dañoo sonn askan bi dañoo sonn depuis 24 ans libéraux yi téye pouvoir bi di buuma ki buumi دي بومك بومي مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيرك الخير وانت على كل شيء قدير لولا يالا ورا تاي ايماجينال ليغا خامني يندي يالا يوسف لي كو دال مو دال تاي بريزون باسيرو ген بريزون ديم بالي يندي يالا يوسف دا генون بريزون با ديم بالي با يندي يالا ا ا ا le président monsieur le président bassirou diomar diar fay tay ji mu def lolu mais buñu faté buñu monsieur le président dama koy wax affaire bo ne ko lan tax mu population sénégalaise sénégalais surtout le président Ousmane Sonko. le président Ousmane Sonko dafay daj bu metti lo xamné euh imaginer sa da fay daw président Diomaye sama lay dem président Ousmane Sonko ci daj sa parti la sa njabot le def la metti yo day

deux élections PDS amul amul candidat liko waral moy lan Karim ou rien Khalifa Sall 2000 2000 2000 2019 deux mille deux candidat mais Ousmane Sonko dafa ne Pastef projet la Pastef idée la bo xamné nekul Ousmane Sonko Ousmane Sonko membre la ci Pastef mais nekul mom mooy Pastef moo tax ñu am ñu am candidat esprit ak stratégie bi mu teg moo tax Pastef raw tey kon di alerter aussi boy nga xam ñoo ne ci prison bi. président Diomaye am na ay milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi si prison bi projet moo tax jay dugg bi projet moo tax yëpp dugg tey si prison bi seen yaay ngi xiif ñu ngi mar ñu rafle ndax booyooyu noonu chaque jour ñu ngi dem rëbës jaar naa fa sànq ay booy yu jeex ñoo fa nekk ñoo xam ne projet moo leen fa yóbbu kon gestul booyooyu noonu tey gestul booyoo baax a baax a baax a baax parce que dañoo daj lu métti dañoo daj lu métti président Macky Sall nag boo ko yërëm ay di nga xool naan wuy sama dama ko yërëm dama ko naam déedéet dafa ray dafa ray di tëj ray di tëj ba tey jii nii déedéet ñaata ñoo fi tuuru ñaata ci ay ndaw ñoo fi dee ngir moom dana leer nañ xiifal xiifal askan wi nit ñu daj ci lu ne ndax moom président mag Sall mais tey jii nii ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér parce que nit la Sénégal la mais di ñaanal président Diomaye yéen wi dis na yéen wi dis na nag ndax dëkk lañ ko dénk te jeune la 44 ans dekk lañ ko denk diko ñaanal yenn wi yalla na woyof yal na wi woyof waye nak diko ko rappelé aussi bu toogee bala dara na wañu dund bi parce que loolu yomb na ko na wañu dund bala dara parce que nit ñi bo xol li tax nit ñi voté massivement moy dund bu cher lañ lay wax dund bu cher jang réer jang feebar faju xif lek loolu mo fi manqué won Senghor Abdou Diouf ablaye ba makissal Sall mo fi manqué won kon tay ji bu ñu bu ñu amee Bassirou suñu xel dal na suñu xel dal na na réformer suñu bi ñu nekk muy milieu éducation na ko réformer waat defaraat ko milieu éducation ñàng meeg ñàngale bi na ko defaraat baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci rafet na lool <laughs> góor gi góor gi doom baay affaire rek salaamaaleykum <laughs> ñu ngi ziar bu baax quand même deux minutes ci sa temps rek da laa dóor xoolal deux ci sa temps rek Camara laa sant maa ngi nii mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah Sénégalais yi at monde entier namoon nañu la. <laughs> maa leen raw ñoom ñëpp waaw maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen màggal te di leen félicité te di leen masawu coono bu baax ndax dëgg la sonnoon nañu waaye lii moom vraiment mérité na ko jaajëf. alors nga ñëwaat tuuti rek ci bés bi tey jam ñaajo ba tey palais lan nga doon yëg. mbégte fierté. contentement kontaan noonu nañ ci lool émotion dëgg lañu doon dund parce que métti woon na lool te loolu du ñu taay ci di ko wax métti woon na lool ci sénégalais yëpp nag kenn sañu te yëkkati loxoom ne man maa gën a métti la ndax ñëpp a métti leen kuñ fi tëjul sa doom tëj nañu sa borom kër wala tëj sa am di jàmm mbaa yow ñu tëj la wala nga gis ko ci ñàkk bakkanam kon métti woon na ci ñëpp

yaa ngi koy ndulli saa su nekk te ne ko doo ko fi yuuxoo dafa métti mhm. kon ñun euh, daanaka ay détenu la ñu woon tamit mhm. moo tax lu ni mel ak mbégte lañ koy dundee ndax ku ci nekk yaa ngi doon jaayante mais yaa ngi doon ne est-ce que lii dinaa fekkee njariñ li mhm. njariñ li nag dëgg la dëgg-dëgg ñëwagul suñuy sët ñoo koy fekkee waaye mbégte la ci ñun ñu fekkee changement parce que ba nii ku ci nekk danaan ay gént laa ko jàppe woon parce que jàppoon nañ ni du mus a jeex jàppoon nañ ni amana suñu démé félé dinañ démat ba ci digg bi ñu lañu ñu déedéet jeex na xéet yoy mhm. moy sa xel du ci dal mais mbékté la fierté la té di wax ni rek ligéy bi day doga tambali moy mhm. ni mako doon waxé dañoo tolloon ci révolution té révolution bi jall na dès lors que fal nañu kaña wara fal lenn mo ci des moy reconstruction moy dëkk bi faaw ñu tabaxat ko té ku ci nekk da ci am wall bu kenn tok né ba xeex jotee xeexoon naa dëgg la xeex gi amna solo waaye li ëpp doolé moy xeex ba nopi ligéy kon képp ku xeexutoon nag ñu dabee ci liggéey gi ndax lañ leen gën a soxlaa képp ka nga xam ne tamit xeexoon nga bul bank say loxo ne man xeexoon naa ba xeex waree ku ci nekk maanaam la nga jëf ba noppi jàppal ni mi ngi sa ginnaaw li des ci kanam moo ëpp doole mooy nañu àndaat booloo liggéey ngir mën a jëmalee mhm. waaw pour mën a jëmalee réew mi kanam te tamit di wax ni suñuy frères yi des kaso ba léegi dañ leen a war a bàyyi Ousmane Sarr dafa war a génn imam bi nga xam ne moo nekk cees euh, des na fa cinq détenus nañ leen bàyyi ñu ñibbi maanaam nit ki nga privé ko de ses libertés dongu dafa métti leneen loo ci dolliwaat lu ne day ëpp nee nañ amnistie nañu donte ñun d'accorduñ ci woon mais ndéem acté nañ ko c'est acté nañ leen bàyyiwaat ñu delluwaat ci seeni njaboot su ko defee ñun ñu mën a avancé waat loolu rek daal lañu amoon ci li ñuy wax te di jaajëfal euh, kontaan di ko félicité daal wax dëgg yàlla nit la yéen bi diis na lool waaye yàlla ku mu ku mu jàppale ku ne luñ la yenn lu ne nga attan ko te jomaay dafa di nit xam nga tey euh, dañoo toll ci réew mu jafe goo xam ne soo waxee dañuy foog ni da ngay tagg nit ki wala di ko jay waaye loo jëflanteeg moom lu ne war nga am sañ-sañu taxaw wax ko ci mbooloo nit la sama xel dafa dal ci moom ndax xam naa ni njiit la gu mat njiit générosité woo mooy lu ñu njëkk impressionné mooy moom jëmmu usmaan Sonko moo ko gënal boppam sénégalais yi ñoo ko gënal boppam. Sénégal am jàmm moo ko gënal jëmm ji man biir na ma ni suñu ne woon benn bakkan mooy tax Sénégal am jàmm jomaay da koy joxe ndax liñ ko xam kon li ñu xam ci moom lañ koy seedeel dëgg la yéen bi diis na waaye am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax nit ku seti loxo la. té dañu né goné su setee ay loxo mëna bok ak mbagi nap nañ ko jappalé ñun la jeunesse su ko défé yéné mëna mat ndax yéné gu set la am yéné gu sell la am des na ci ñun sénégalais bu len faté ni réew benn nit tabax ko 10 personnes tabax ko parti politique mënut a tabaxi réew waye ndaw réew ñoy tabax réew kon na ñëpp japp ni dañ ko wara jappalé ngir mu dem kanam man damay wax ba ci ñi nga xam ne tey ñoom ay opposants lañu réew mi ñun ñoko bok su yàqoo du ñun kese la yàqool moy tok né jomaay échoué na xamna ni sax duma sa am waye tok ba ñu wax nit di ci di ci contane loolu defetu Sénégal gi yépp la kon ba ci ñi nekk ci opposition bi su dee ful la mi ngi ci ñom nañ ñew japp ci liggéey bi ñu liggéey on a perdu assez de temps assez d'argent assez d'énergie assez de vie humaine ñaata nit ñoo ci yak sen bakkan tay té ku ci nekk ku né amna lo perte tay ci combat bu ni mel kon na ci ñepp japp muy yeen journalistes yi muy ñun ñi militants yi liggéey bi day doga tambali kon na ci